sëriñ bi mi wax ne auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa sallim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp góor ñi ak jigéen ñi te di leen sant bu ñu ñaanee suñu borom. nee na ginnaaw bu ñu ñaanee suñu borom. mu yàggalal ñu fi suñu kilifa. mu yàggalal ñu fi suñu kilifa. muy Serigne Mouhamadul Mountakha. suñu borom yàggal ko ci suñu kanam. suñu borom yàggal ko ci suñu kanam. tam ànd ko wér. tam boole ñu ko ak moom. tam boole ñu ko ak moom. ñim denk barab bii itam. nee ñim dénk barab bi tamit. ñu leen di sant ñu leen di ñaanal. ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di ñaanal. yàlla na yàgg ci seeni loxo. yàlla na yàgg ci seeni loxo. tañ yàgg cee am ndam. tañ yàgg cee am ndam. ci barkeb Serigne Touba. gannaaw loolu. gannaaw loolu. mi ngi suñu borom bu baax. sëriñ bi nee na mi ngi sant suñu borom bu baax. ci daje bii. ci daje bii. ak liggéey bii. ak liggéey bii. te di ko ñaan moom suñu borom. te di ko ñaan moom suñu borom. yal na ko jëme kanam. yal na ko jëme kanam. ba mu àgg fu àgg fu kawe njort yàlla mën na ko yàlla yàlla. mën na ko yàlla ko yàlla def. waaye li ciy sunu ñun nag. waaye nag nee na moom li ciy wàllam. ñun ñëpp laa. ñun ñun ñëpp nee na suñu wàll ñun ñëpp. ngir liñ bëgg mën a am. ngir liñ bëgg mën a am. kenn ku nekk ci ñun. kenn ku nekk ci ñun. na ne. na jàpp ni. moo tax mbir mi dox. moo tax mbir mi dox. su teyee loxoom dootul dox. su teyee loxoom dootul dox. su ko ku noonu. su kenn ku nekk jàppee noonu. lépp yomb. lépp dina yomb. ndaxitam lii. ndax lii. du yomb. du yomb. am na ay jamono. am na jamono. ku waxoon ne mën naa nekk. ku waxoon ni mën naa nekk. ñu weddi ko ñu weddi ko. te na gaawaan doon doxe bu njëkk. te na gaawaan doon doxe bu njëkk. moo tax war nañoo sant yàlla. nee na moo tax war nañoo sant yàlla. bu baax bu baax. jàpp lii bu baax. te jàpp lii bu baax. ndax lii. ndax lii. mën na jur njëriñ lu ka foogul. mën naa jur njariñ lu kenn foogul. ndax mbooloo mbooloo mu ànd. ndax mbooloo mu ànd. te bëgg seenub ànd yomb. te bëgg seenub ànd yomb. te yàgg ta yàgg. yii may bëgg a lim. lii muy yii lim. na ko ku nekk jàpp. na ko ku nekk jàpp. nañuy nawloonte. nañuy nawloonte. wóoloonte. wóoloonte. soppante. soppante. tey diisoo lu bari. tey diisoo lu bari. yii mënula ñàkk ci mbooloo mu bëgg a ànd. nee na yii mënta ñàkk ci mbooloo mu bëgg a ànd. ànd bu yàgg. ànd bu yàgg. waaye koo xam ne. waaye koo xam ni. fu ñu wootee du ñëw. fu ñu wootee du ñëw. ñu laajee du joxe. suñu laajee doo joxe. du génne ay xalaatam ci kanam mbooloo mi. du génne ay xalaatam ci kanam mbooloo mi. kooku lu yàqu génnu ca. kooku lu yàqu génnu ca. te lii. te lii. njariñam dafa bari. njariñam dafa bari. dafa yaatu. dafa yaatu. 1000 francs yooyu ñuy laaj. nee nañ 1000 francs yi ñuy laaj. ku ko joxe. ku ko joxe. mën nga cee am yiwu. mën nga cee am yiwu. ku tabax juma. ku defar ku occupé euh, poste de santé. ku occupé poste de santé bi. ci yenn 1000 francs yi. ci yenn 1000 francs yi. lépp luñ ci def ci investissement. lépp luñ ci def ci investissement. ku ca joxe 1000 francs. ku ca joxe 1000 francs. suñ borom da bindal yiwu ku def loo la Serigne Touba. Serigne Touba. muy santaane liggéeyub jumaa ji. na bi muy santaane liggéeyub jumaa ji. limub ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett la doon laaj. nee na limub ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett la doon laaj. ngir yéene woon murid yëpp. la mu yéene woon murid yëpp. ngir yéene woon murid yëpp. ngir yéene woon murid yëpp. kenn ku nekk. kenn ku ne. am yoolub. am yoolub. ku tabax jumaay Touba. ku tabax jumaay Touba. noonu la mbir mi demee. nee na mbir mi nag noonu lay demee. ku joxe woon loolee. te ku joxe woon loolee. noonee nga koy amee. noonee nga koy amee. waaye lu mel nii. waaye lu mel nii. ku ci jàpput. ku ci jàpput. xanaa di ko jéem a saboté. xanaa di ko jéem a saboté. wala ngay def luy tax mu jëme muy jëm gannaaw. wala nga koy jéem a def luy jéem a muy dellu ginnaaw. Bakkaar ba. Bakkaar ba. doo ko attan bu ëllëgee. doo ko attan bu ëllëgee. wolof nag day wax ne. wolof nag day wax ni. teel xam saw sas ci tool bi. teel a xam saw sas ci tool bi. dina la yombalal. dina nga teel a jeexal saw dooñ. nga teel a jeexal saw dooñ. ci tool ci tool bi. ndaw. ndaw. dafa war a waajal boppam bu baax. dafa war a waajal boppam bu baax. ndax fu nekk. moom lañ ko lañ ko fa soxla. ndax fu nekk lañ ko soxla. adduna daf koo soxla. adduna da koo soxla. diina ji da koo soxla. diine ji da koo soxla. kon ndaw. kon ndaw. jotam bariwul. jotam bariwul. moo tax suñu borom soo lëgee moo tax suñu borom boo lëgee li mu nuy njëkk laaj lim ñuy njëkk a suñu dund gii ci suñu dund gii mooy suñu ndaw gi mooy suñu ndaw gi ci lan lañu ko sànq ci lan lañ ko sànq nga xam ne mooy mooy lépp solo ci suñu dund ndax mooy lépp solo ci suñu dund kon nañu bokk xam ne kon nañ bokk xam ni suñu bokkee suñu bokkee takku suñu bokkee takku boole suñu bopp boole suñu bopp ngir taxaw suñu gox. ngir taxaw suñu gox. loola buñ ko defee. loola buñ ko defee. yàlla dana ci dugal loxoom. yàlla dina ci dugal loxoom. mën naa àgg fu kawe suñu. mën naa àgg fu kawe suñu waaye nag. waaye nag. ginnaaw léegi moyens yi bari na. ginnaaw léegi moyens yi bari na. ba loo wax. ba loo wax. ki jiite mi mën na ko dégg. ki jiite mi mën na koo dégg. moom it ñu ngi wax ak moom. moom it ngi wax ak moom. ci mu jéem jàpp ci yu mel. ci jéem a jàpp ci yu mel nii. ci mépp mbooloo muy doxee lu. ci mépp mbooloo muy doxee lu mel nii. war na ci jàpp. war na ciy jàpp. ndax li mu nit lu muy xeex. ndax nit lu muy xeex. koo koy xeexle. koo koy xeexle. war nga koo war nga koo fonk. te ñii. te ñii. li ñuy xeex. li ñuy xeex. mooy li président di xeex. mooy li président di xeex. mooy ndaw ñi. mooy ndaw ñi. jub yaru yaru te toog ci réew mi te toog ci mi. yaakaar fi yàlla te yaakaar fi yàlla. te nangu fee liggéey te nangu fee liggéey. loolu la bëgg loolu la bëgg. te yéen ñii te yéen ñii. yéen ci loolu ñoo ngi ci loolu. gone gu jub gone gu jub. nangoo liggéey nangoo liggéey. bu jiiteem réew soxla nga ko ku jiiteem réew soxla nga ko. te gone yii fi ne. te gone yii fi ne. di gone yi cosaanoo gaawaan ak li ko wër. di gone yi cosaanoo gaawaan ak li ko mu ñu benn jafe-jafe. amuñu benn jafe-jafe. ak yoonu réew mi. ak yoonu réew mi. ku demoon di di di vérifier. nee na ku demoon di vérifier. doo gis doo gis seen i tur. doo gis seen i tur. ca la yoonu réew mi te di tere. ca yoonu la yoonu réew mi di tere. ma seesu leen a dégg itam. kenn mosu leen a dégg itam. ci li ñuy woowee. ci li ñuy woowee. Barça ak Barsaq. Barça ak Barsaq. kon nag kon nag. ki jiite réew mi. ki jiite réew mi. na jéem a jàppale ci na leen jéem a jàpp jàppale ci lii ñuy dox. nañu jéem a jàppale ci lii ñuy dox. taxit nag. taxit nag. ku santaane. ku santaane. ku mën ca santaane ba. ku man ca santaane ba. waroo koo yemaleeg ka ca a ka ca gën a yaafuus. nañu jéem a jàpp suñu gox bu baax. nañu jéem a jàpp suñu gox bu baax. bu nu bu nu président jàppale bu nu jàppalewul. bu ñu président jàppale ak bu ñu jàppalewul. yàlla mi nga xam ne. yàlla mi nga xam ni. mooy jàppale képp ku am kattan. mooy jàppale képp ku am kattan. dinañu jàppale dinañu dinañu jàppale incha allah. ndax dañuy gis ne. ndax dañuy gis ne. réew mi ni ma koy faral di waxee. réew mi ni mu koy faral di waxee. ku noppi. ku noppi. duñ la sedd. duñ la sedd. waaye ñun nag. waaye ñun nag. du tax ñu soppi suñu jikko. du tax ñu soppi suñu jikko. nañ bàyyee suñu bopp. nañ bàyyee suñu bopp. ak suñu borom. ak suñu borom. te nekk ci lim ñu digal. te nekk lim ñu te nekk ci lim ñu digal. te bàyyi li ñuy tere. te bàyyi lim ñuy tere. te déglu ko. te déglu ko. loolu mooy li ñu nee na loolu mooy li ñu war. xam sa bopp nag. nee na xam sa bopp nag. ak nekk ci li nga war a nekk. ak nekk ci li nga war a nekk. loolu koo gis mu mu mu am li mu am. koo gis mu am li mu am. moo ko may loolu. loolu moo ko may. kon maa ngi leen di dénk. kon mi ngi ñuy dénk. ngeen góorgóorlu ci am yitte. ñu góor góorgóorlu ci am yitte. am jom. am jom. te jub te jub. na ngeen xam ne ndakaaru gi di gis. nañu xam ne ndakaaru gii ñuy gis. étage yi ngeen fiy gis. étage yi ñu gis. oto yi oto lu ngeen fi gis. luñ fi gis rek. jinne yi moomuñu. jinne yi moomuñu ko. seeni nawle rek. suñuy nawle rek ko moom. te suñu borom moo ko jox kaka moom. te suñ borom ak ko jox kaka moom. kon yokk leen seen jom. kon nañ yokk suñu jom. yokk seen jub. yokk suñu jub. suñu borom dana leen jox. suñu borom danañu jox. li mu jox seeni nawle. li mu jox suñuy nawle. kon sàmm ñaar yooyu. kon sàmm ñaar yooyu. muy jom ak jub. muy jom ak jub. ku ci sax. ku ci sax. bul jom bul sa bopp jombale sa bopp benn teraanga. bul jombale sa bopp benn teraanga. muy bu àdduna. muy bu àddina. bu alaaxira. ndax suñu borom. ndax suñu borom. mooy séddale teraanga yi. mooy séddale teraanga yi. la mu ca yor du jeex. te la mu ca yor du jeex. te doo yewu ko dara. te doo yewu ko dara. lu dul séddale. lu dul seddale waaye ku ñàkk jom nag. waaye nag ku ñàkk jom. jubadi jubadi. bul séentu dara. bul séentu dara. dañuy wax ne. dañuy wax ni. ñaan. ñaan. ak yéene. ak yéene. ñoo ñoo yam. ñu jariñ ku jubadi duñ jariñ ku jubadi duñ jariñ ku ñàkk jom duñ jariñ ku ñàkk jom soo ñaanloo ba noppi soo ñaanloo ba noppi dangay ngay jóg da ngay jóg sabablu sabablu ji bala ngaa yéene bala ngaa yéene muy am njariñ muy am njariñ da ngay jëf da ngay jëf ba sa kattan jeex ba sa kattan jeex nga doog a yéene suñ borom wax ak yow suñ borom wax ak yow nit itam nit itam. bu amee jom. su amee jom. dafa war a rëy itte. dafa war a rëy ay itte. maas goo gis. maas goo gis. ña ca gën a rëy itte. ña ca gën a rëy itte. ñoo cay jiitu ñoo cay jiitu. kon kon. bu leen naxe. bu ñu naxe. waaye bu leen nangu ku leen nax. waaye bu ñu nangu ku ñu nax. ci seen adduna. ci suñu addina. rawatina seen alaaxira. rawatina suñu alaaxira. bare na yu ngeen di dégg. nee na bare yu ñuy dégg. ñu di ko yéem. ñu di ko yéem. ka ko def. ka ko def. ñu bari ci ñi fi toog. ñu bari ci ñi fi toog. mën nañoo jur kookee. mën nañoo jur kookee. ba muy def loole ba muy def loolee. rawatina ci diina ji. rawatina ci diina ji. dina ci joxe benn misaal. dina ci joxe benn misaal. benn sahaaba. ci benn sahaaba. bu ñuy wax. bu ñuy wax. Seydou. Seydou. Ibnu Saabit. Ibnu kooku kooku bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di dem Madina. di dem Madina. fukki at ak benn la am. fukki at ak benn la am. te booba fekk na. mu mokkal alxuraan. mu mokkal alxuraan. te booba alxuraan. dajalee ko. ba mu nekk benn kaamil. ba mu nekk benn kaamil. booba fu ne lañ koy bind. booba fu ne la ñuy alxuraan. ñenn ñi di mokkal lii. ñi di mokkal lii. moom mu fexe ba mokkal lépp. bi Ababakar Sadiq toogee nekk wuutu yonent bi. nee na bi Ababakar Sadiq toogee wuutu yonent bi. bi commission moo jiite woon commission ba. yitte ju kawe la. loolu yitte ju kawe la. xale bu ndaw la waaye booba xale bu ndaw la. yitte ju kawe. yitte ju kawe. moo ko may loolu moo ko may loolu. kon kon. na ngeen yittewoo. nañu yittewoo. yitte ju kawe. yitte ju kawe. nit lu mu jombale boppam. nit lu mu jombale boppam. du du ko am mukk. lu ngeen di sàkku. lu ñuy sàkku rek. sàkku leen la gën a kawe. nañu sàkku la gën a kawe. gën ca gën ca. su demee ca marché ba. nee na bu ñu demee ca marché ba. di fa jënd di fa jënd. tànn leen la gën ca marché. nañu tànn la gën ca marché ba. loo fa jombale sa bopp. loo fa ba bàyyi ko fa. ba bàyyi ko fa. sab nawle. sab nawle. nga ko fa bàyyil. nga ko fa bàyyil. te doo te gënu la. te gënuñu. ndax su la nee maa gën nga. ndax ndax ku la ne maa gën nga bañ. kon lu ñuy di wut. kon lu ñuy wut. taamu leen la ca gën. nañu taamu la ca gën. suñu borom a yor ñëpp. suñu borom a yor ñëpp. mooy séddale ñëpp. mooy séddale ñëpp. bu ngeen fii ñee. kuñ fi ñee rek. lañ koy ñee. lañ koy ñee. suñu borom a ko jox même ba ca jàkka ja. nee na même ba ca jàkka ja. wala jumaa ja. wala jumaa ja. bu ñu demee. dem ñu ca dem ca sàppe su jëkk ja ndax moo ëpp yiw maa ngi leen di dénk itam. mi ngi ñuy dénk itam. fonk seen i waajur. fonk suñuy waajur. na ngeen leen jiital ci lépp. nañu leen jiital ci lépp. ñaanug waajur. ñaanug waajur. dina tax a jot. dina tax a jot. li ngay yóotu. li ngay yóotu. say loxo jotu ko. te say loxo jotu ko. seen ngërëmal waajur. nee na ngërëmal ñaari waajur. moo gën ci yéen. moo gën ci ñun. ngërëmul kudul ñoom. ngërëmul kudul ñoom. loolu nañ ko bàyyi xel. loolu nañ ko bàyyi xel. ba ci sëriñ bi nga sukk jébbalu. ba ci sëriñ bi nga sukk jébbalu. ngërëmal say waajur. ngërëmul ñaari waajur. moo gën a foor. moo gën a foor. gën ci moom. gën ci moom. bàyyi xel nañ ci bàyyi xel bu baax. ndax tam. nit boo ko yéenee jàmm. nit boo ko yéene jàmm. da nga koy woon wa yoon wa jëm ca kër jàmm. kon. kon. mbooloo mbooloo mi. mbooloom julit mu ànd. mbooloom julit mu ànd. ngir jëmmi yàlla. ngir jëmmi yàlla. di sàkku menn mbir. di sàkku menn mbir. te sottiwul. te sottiwul. bariwul bariwul. lu mbooloom julit ànd. lu mbooloom julit ànd. di ko sakku. di ko sakku. te muy lu neex yàlla. te lu neex yàlla. bu sottiwul tey. bu sottiwul tey. sotti suba sotti suba. ndax loxob suñu borom dafay nekk. ndax ndax loxob suñu borom day nekk ca biir. suñu borom. suñu borom. du tas yaakaari mbooloom. du mbooloom julit. mu ànd ngir jëmi mu ànd ngir jëmi yàlla. mbir mu ne nag. mbir mu ne nag. booloo ca gën. booloo ca gën. moo tax suñu borom. moo tax suñu borom. jaamu yàlla yi mu ñu sant. jaamu yàlla yi mu ñu sant. mu boo mu di ñu digal. mu di ñu digal. ñuy booloo di ko def. ñuy booloo di ko def. ndax mbooloo yërmande. ndax mbooloo yërmande la. ku fi beru nag. ku fi beru nag. bis dina ñëw. bis dina ñëw. nga soxla mbooloo nga soxla mbooloo mi. benn loxo. benn loxo. mën naa wutum ñax. mën naa wutum ñax. rabat ko rabat ko. xadd ko ko. waaye bu ci yëkkati néeg ba. waaye bu yëkkati néeg ba nag bu ca desee. faaw koñ bu nekk. faw koñ bu ne. nit nit nit taxaw ca. bu dul loolu. bu dul loolu. néeg bi du jóg néeg bi jóg. mi ngi sant bu baax itam. nee na mi ngi sant bu baax itam. suñu bokk jigéen ñi. nee na suñu bokk jigéen ñi. njiital soxna Assou Mbaye. ci njiital soxna Assou Mbaye. man de ba ma ko xamee ak léegi. nee na moom na ba mu ko xamee ak léegi. xam ci moom mooy. li mu xam ci moom mooy. lu ñu yëkkati gaawaan. lu ñu yëkkati ci gaawaan. muy lu baax muy lu baax. te ña tey jiitu la bokk. muy alalam. muy alalam. muy xelam. muy xelam. muy dooleem. muy dooleem. mu dig jotam. nee na moom de ba ko xamee ba léegi. ci loolu la ko xam. musuma gis lenn lu ñu yëkkati. nee na musta gis lenn lu ñu yëkkati. muy njariñul waa gaawaan. muy njariñul waa gaawaan. ña dëkk gaawaan. ak ña dëkk gaawaan. te gis ca loxoom. mook ñi muy àndal. mook ñi àndal nag. kon nag. ñu ngi lay sant. ñu ngi ñaanal. li ngay wut gaawaan li ngay wut gaawaan. di ko fa xaar di ko fa xaar. yàlla ñëw ci say loxo. yàlla na ñëw ci say loxo. tañ fekke ko tañ fekke ko. suñ borom sekkil sa njaboot. suñ borom sekkil sa njaboot. defal la lu dal sa xel. defal lu dal sam xel. li nga yaakaar lépp nga jot. li nga yaakaar lépp nga jot ci. ndax sant nañ la bu baax ndax sant nañ la bu baax. xam nañ sab taxawaay. xam nañ sab taxawaay. te bëgg lu baax. te bëgg lu baax. ak jom ak jom. moo la ba ca dëkk ba moo la ba ca ba. waaye bu dul woon loolu. waaye bu dul woon loolu. dellu woon nga bu yàgg. dellu ngi lay sant. kon ñu ngi lay sant. di sant ñi nga àndal. di sant ñi nga àndal. li may jeexale li muy jeexale mooy li ñu bokk mooy li ñu bokk muy dëkkub gaawaan bi ñu wax ne muy dëkkub gaawaan bi ñu wax ni moom lañ tuddee mbooloo mi moom lañ tuddee mbooloo mi muy gaawaan ca kanam muy gaawaan ca kanam mu bëgg ñu bokk xam ne nee na mu bëgg ñu bokk xam ni lii sama pas-pas lii pas-pasam mooy mooy ñu soppi xar kanab gaawaan ñu soppi xar kanab gaawaan ci anam yëpp ci anam yëpp nag tàmbalee ko ci tàmbalee ko ci xamal ñi nga xam ne dañoo xamul. xamal ñi nga xam ne dañoo xamul. nit bari na. nit bari na. coono yu muy daj. coono yi muy daj. li ca sànq ay waxtoom li ca sànq ay waxtoom. ñàkk a xam moo ñàkk a xam moo ko teg. xamoon. waaye bu xamoon. du sonn du sonn. te dana jot ci loolee muy sàkku. te dana muy sàkku. kon nag gaawaan moom. kon nag gaawaan moom. nañu xam ne nañu xam ni. lii sama yéene. moom de lii yéeneem. mooy ñu jëmale ko ca kanam. mooy ñu jëmale ko ca kanam. bu baax baax bu baax a baax. bu ñu santee nag. ginnaaw bu ñu santee nag. tey ñaanal. tey ñaanal. suñu mag ju baax ji nga xam ne. suñu mag ju ji nga xam ni. jiite na ko ñeent fukki at. na ko ñeent fukki andil ñu fa jàmm. andil ñu fa jàmm. andil ñu fa lu baax. andil ñu fa lu baax. ñëpp nekk benn. ñëpp nekk benn. muy El Hadj Mor Fati. muy El Hadj yal na ko yàlla dolli yërmande. yal na ko yàlla dolli yërmande. yal na ko xéewal. yal na ko dolli xéewal. dolli ko jàmm. dolli ko jàmm. moog rakki boppam ja. moog rakki boppam ja. di Serigne Asfaale Mbacke. ak ñañ fa fekk. ak ña leen fay fekk. wàcc nañu. wàcc nañu ñoom. def nañ liñ man. ku def loo nit ku nit ku def lim man. nit ku def lim man. wàcc ñun ñii. ñun ñii ñoo war yéeg. ñoo war a war a lañ doon def. war a àggale lañ doon def. sosaat leneen. sosaat leneen. àggale loo àggale loolee. loolu nag. loolu nag. ñu ngi ko ñu ngi koy mën a amee ci. ñu ngi koy mën a amee ci. nekk benn. nekk benn. xol yi. xol yi. ñu fexe ba mu nekk benn. ñu fexe ba mu nekk benn. àndab kaw bi. àndab kaw bi. na nekk ci biir. na nekk ci biir. dañ fas yéene nekk ci jub. dañ fa yéene nekk ci jub. te nangoo liggéey. te nangoo liggéey. te liggéey te doylu. te déglu suñ borom. borom a yor lépp suñ borom a yor lépp waaye gannaaw lim nu sant waaye gannaaw lim nu sant defuñu lépp defuñu lépp lim nuy tere lim ñuy tere bàyyiwuñ lépp bàyyiwuñ lépp buñ ko soññi buñ ko soññi koo xam ne lim lay lim lay digal defoo ko. koo xam ne lim lay tere bawoo ko ko. boo soxlaa ca yor nag. boo soxlaa ca yor nag. ah da ngaa war a toog déglu ko. ah da ngaa war a toog déglu ko. loolooy mooy dëgg. te ñun ñëpp xam nañ ne. te ñun ñëpp xam nañ ni. li suñu borom digal li suñu borom lépp leen digal defuñu lépp. lim ñu tere bawuñu lépp. lim ñu tere bawuñu lépp. kon nag kon nag. nañ toog déglu ko nañ toog déglu ko. te bañ a ñee kenn te bañ a ñee kenn. léppay baax bu. léppay baax bu soobee yàlla alhamdulilah alhamdulilah léppay baax bu soobee yàlla. waaye daal li ëpp solo lépp solo. lii tax liñ man ko li tax liñ bëgg ñu man koo am. mooy mooy. àndab kaw bi àndab kaw bi. na nekk ci biir. jëmmi dëkk bi itam. jëmmi dëkk bi itam. ñu teg ko ci yoon wu jub. ñu teg ko ci yoon wu nit ku nekk. nit ku ne. la nga man la nga man ñu di la ko jox. ñu di la ko jox. lu nit tële. lu nit tële. na bàyyi ka man. na bàyyi ka man def ko. loolu daal. loolu daal. la bëgg ñu doxale ko ci dëkk bi. te nag. damaa fas yéene. dafa fas yéene. gannaaw man dañoo wax ne maa fi sës. ginnaaw dañoo wax ne moo fi sës. mu nekk ci nekk ci ay loxom. fas ko ànd ak yéen. fas koo ànd ak ànd ak ñun ñii. képp koo xam ne. képp koo xam ni. jóg nga jóg nga. bëgg a gàllankoor loolu. bëgg a gàllankoor loolu. ngànnaay loo yore. ngànnaay loo yore. dinaa yore lu ko gën a. dinaa yore lu ko gën a foor. boo yoree yot mu yor jaasi. boo yoree yot mu yor jaasi. boo yoree jaasi mu yor fetal. boo yoree jaasi mu yor fetal. jaral ma jaral lu mu ko jaral mu jaral ko lu ko. gaawaan moom. gaawaan moom. damay ñaan yàlla. mu defal ñu kattan. ba fi ko fekk. ba fi ñu ko fekk. ñu yokk ko. te yàlla mën na ko. te yàlla mën na ko. yàlla nañu ko yàlla defal. ñi ngi sant ñëpp. ñi ngi sant ñëpp. di ñaanal fii ngeen nekk fii ñu nekk. ak ñeneen ña fañ nekk. ak ñeneen ña fañ nekk. suñ borom miy séddale. suñ borom miy séddale. yal na leen yal na ñu sédd. kenn ku ci nekk. kenn ku ne. fa nga bokk. fa nga bokk. yal na nga yal na nga bokk ci ñay dimbalee. yal na ñu bokk ci ñay bu ñu te yàlla bu ñu kenn dimbalee. ku dul yàlla ku dul yàlla suñ borom. ci barkeb Serigne Touba. borom mën na ko. suñ borom mën na ko. bu ko defee. bu ko defee. suñu borom. suñu borom. su ko defut suñu borom tañ bokk góorgóorlu tañ bokk góorgóorlu. tey déglu nag tey déglu nag. waxi Cheikh Mouhamadul Mountakha. waxi Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na yàgg te wér. mi fi nekkal Serigne Touba mi fi nekkal Serigne Touba. ku ko déglu ku ko déglu. da nga jub di nga jub di nga am jom di nga am jom di nga tegu ci yoon di nga tegu ci aw yoon ndax moom ci loolu la ne kenn mënu koo gàkkal kenn mënu koo gàkkal waaye nag noonu la war a mel noonu la war a mel ku dem ba toog fi Serigne Touba daan toog ku dem ba toog fi Serigne Touba daan toog nga mel nii mu mel faaw mu mel nii mu mel kon nag nañ fas yéene ay taalibe kon nañ fas yéene nekk ay taalibe suñu diine diine di jub bu ñu wéetee bu ñu wéetee nañ gore buñ wéttalikoo nañ gore fuñ mën a nekk rek yàlla mi ngi ci suñu biir mi suñu biir. te borom. te suñu borom. noppi na ci ñun ñëpp noppi na ci ñun ñëpp. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na. suñu borom suñu borom. xalima gëm doon bind mbir yi. xale xalima gëm doon bind mbir yi. yëkkati na ko yëkkati na ko. mbind ma wow na mbind ma wow na. ñëppay jot seen ñëppay jot seen ab cër. kii naaw kii naaw. lu mu gaaw gaaw lu mu gaaw gaaw. fi lay bàyyi fi lay bàyyi. cërëb kii darngu cërëb kii darngu ñëppay jot seen ñëppay jot seen ab cër. yal nañu yàlla doole ndimbal. yal nañu yàlla doole ndimbal. doole ñoo sàmm. doole ñoo sàmm. doole ñuy xéewal doole ñuy xéewal. kenn ku nekk kenn ku ne. ba kenn ku nekk. ba kenn ku nek ba kenn ku nekk li nga yéene ci diina ji ci bokk gi ci dëkk bi nga man ko ci barkeb Serigne Touba ñi ngi sant itam bu baax bokk yi nga xam ni dañoo nekk bitim réew gis nañ seen ab liggéey ñooñee gannaaw yàlla seen yaakaar gaawaan la waaye gis nañ seen liggéey waaye gis nañ seen liggéey bu baax nak ñoom ñu nekk bitim réew rafetlu nañ ko bu baax ñu ngi leen di ñaanal ñoom itam suñ borom bett leen ak xéewal bañ dellu siwaat ci réew mi ba duudu ñu bëgg a dem fenn yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci barkeb Sëriñ Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullah habibi jaayi man wal muxtaaru dunya wa uxra xayra ma axtaaru wajal ijaaban بيننا وبيننا كل إحسان وارتفع عنا العينا يا الله يا نصير يا جليل إني أخير مقدم سليل فلتغني